bokk na ci révélation saison 2021 2022 fële ca championnat bu Allemagne ci club boobu di Mayence muy wuyoo ci turu Moussa Niakhaté muy ab défenseur centrale di franco-sénégalais tey nag dañoo fa yéene ñëw wax ci moom def ci moom vidéo vu que ne éligible na ngir jouer ci équipe nationale bu Sénégal Moussa pour ñi ko xamul mi le 8 mars 1996 fofé France mi ngi am 25 ans di mesurer 1 mètre 90 mi ngi défenseur central di football ci club bobo di Mayence ci championnat bu Allemagne Moussa Niakhaté mi ngi carrière professionnelle am ci club bobu di Valenciennes ci atum 2014 ci club bobu di Valenciennes sax ci la 2017. Ganaaw ba fa footballee lu tolloo ci 78 matchs ci noonu nag ci la quitté ci boobu la club dem ci club boobu di FC Metz ca première division bu France ci atum 2017 ci club boobu di Metz nag fa la wane boppam wane fa potentiel bi nga xamante ni am na ko ba tax benn saison sax la fa def muy saison 2017 2018 gannaaw ba mu fa footballee 38 matchs.

wane leadership bi nga xamante ne am na ko wane talent défenseur bi nga xamante ne moom Moussa Niakhaté am na ko ba tax sax actuellement moom mooy takk capitaine bi loolu rek dafay wanal que ne suñu défenseur bi capitaine la leader la ci boobu la équipe muy Mayence. moom franco sénégalais bi di Moussa Niakhaté mën nañoo wax li ñuy laaj ci joueur moderne yëpp mi ngi ci moom un profil très ndaxte gaucher la Il possède une belle qualité de relance. Il est presque imbattable dans les duels aériens. aussi à nañ avec polyvalence parce que beaucoup de défenseur central mu latéral boo ci jox ou gauche ou droite kon loolu noonu point fort la. bataille est très Moussa comme ni ma dit, ko franco sénégalais la mën jouer équipe nationale du Sénégal wala l'équipe de France.

ba tey moom nee na aussi Sénégal le gën a xam que France parce que bi mu nekkee xale ba léegi chaque été fii lay ñëw en tout cas damay def appel fédération sénégalaise de football ñu jëm ko ceytu indi ko parce que dana am amal nañu njariñ lool parce que défenseur la boo xamante ne am na ay qualité yu bari am potentiel bu baree bari parce que France aussi mi ngi misé wu ci moom parce que football na catégorie yu bari foofee ci équipe bu France kon gars yi loolu laa leen andi loon tey di leen continuez de vous abonner activer la cloche te ngeen di vidéo yi te di ko partager jaa ngeen